soxna jaara buso ma jànga dëgg lay béyit mam jaara asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki talibé yi ñu ngi leen di nuyuwaat di leen bu baax baax ci bis bu tedd bi nga xamné mom dëgmal muy bisub soxna si di màggalu poroxan niñ leen ko xewon sank sànq ci daara yi soxna jaare yi muy turundo soxna si waxtaan ñu fi doon am ak soxna wa Dem mu baax mu tedd mom ñi ngi fi nak ci centre de formation maam jaare bi ak sunu jigen bu baax bi ñu jàkkaarlool muy soxna ndayja di directrice su centre de formation bi ñu fekk ko fi ak ñi nga xamné ñom ñokoy jappalé ci liggéey bi muy formatrice yi dañ koy bàyyi mu nuyoo ci micro alxadimiya bu ko defee ñu soog a moom ci li nga xam ne mooy illay jotaay bi soxna Ndeye ñu ngi lay nuyu di la siyaare bu baax ñoo ngi lay fay sëñ bi Ndiaye ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonent bu tedd bi salallaahu alayhi wa sallam di ñaanal sëñ Muntaxa mu sëñ Basiru yàlla guddal aw fanam bàyyi ko ñu gunge ba ci kanam kanam te wëral ko ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay. di jiital ci nuyoo bi wa daara maam jaara buso ñi nga xamante ni ñoo dala centre de formation bi fii ci Porokhane ak personnel bi ma àndal muy formateur yi ak formatrice yi ak képp ku nekk ci administration bi ak professionnel yi ñuy yi ñuy jàppale ci liggéey bi rawatina tey jii tailleur yi nga fa fekk ñu jóge Touba ñoom tamit ñu ngi leen di boole ci nuyu bi di leen sant di leen gërëm soxna Ndeye kon day mel ne waxtaan wi nar na am particularité ndax euh, day mel ne tey yooyu am na liggéey boo am solo bu ñuy def ci Mame Bousso yi xam naa du ñàkk ci biir ITV bi dinañ ko souligner nonte buñ paree sax nañ am ak ñoom benn jotaay incha allah waaye buñ dikkee ci sa jëmm rek nga defal ñu tuuti de façon romancée un ci sa jaar-jaar ba keroog ngay dikk ci barab bu tedd bi fas yéene fee liggéeyal soxna si ci former ay nit ci yar leen en même temps. jërëjëf bi ñu dalee jàng suñu dëkk bi tudd Eh, département Bambey commune rurale bu Ndondol Ndiémane fa la ñu jàngee suñu primaire biñ fa amé entrée en e ak certificat ñu dem Bambey CM Jéeri fofu lañu amé ñu e bañ CM Jéeri aussi tombé ñu créé lycée de Bambey fa la ñu jàngee aussi am fa bac biñu amé suñu bac ñu dem université Cheikh Anta Diop département histoire ñu fa défé 1 an nak après ci lañu def concours d'entrée ci école bi nga xamante ni fa la ñuy tàggate monitrices yi ak maîtresse d'économie familiale et sociale yi foofu la ñu amee suñu premier diplôme bu monitrice d'économie familiale et sociale ci deux ans biñ paree ci deux ans yooyu aussi ñu defaat yeneen deux ans pour nekk maîtresse d'économie familiale et sociale bañ ca paree en 99 suñu premier poste mooy CRETEF de Diourbel foofu la ñu affecté woon comme formatrice

chaque bu fekkente ne dañuy xayma place dañuy wax ne les hommes qu'il faut à la place qu'il faut loolu nag c'est vice versa d'après bi ñu la indee fii nag mu nekk lu loo xam ne parcours bu riche la ñu jox la soxna jaare yi critères yi nga xam ne ñoom la soxna jaare yi di duggee ci centre de formation bi loolu mën nga ci dikkal rek tuuti incha allah bu ko defee ñu xam ko ak itam laaj bi ñu ci laxasaale mooy ndax da ngay doon am soxna jaare rek soog fee mën a tabbi wala ñi dëkk ci dëkk bi aux ku ci xemmem liggéey bi bëgg cee tabbi mën nga cee tabbi loolu lañ ci mën a indil jërëjëf sëñ bi donc soxna jaara yi moom ni ñu fiy duggee mooy su suñu jàngee ba mokkal alxuraan ba dem tari Touba bañ nangul leen ko après bu école tijjee ba ñu dellusiwaat ci lañuy ñuy soog a ñëw opté nag pour formation professionnel formation bi aussi bu ñu ñëwee dañ leen di présenter métier yi fi nekk ku ci nekk choisir ba nga ca bëgg ñu tàggat la ci ba ba ngay pare euh, formation bi nag yemul ci soxna jaara yi. parce que comme min comme état du Sénégal moom dafa jaboote ñëpp gannaaw ba mu formé soxna jaare aussi daf na daf koy yaatal ci ndaw yi nga xamante ni ñu ngi dëkk ci poroxaan ak li wër donc ndaw yooyu aussi ñu gis seen bopp ci biir centre de formation professionnelle bi ñoom ñu ngi fiy si aussi. Hmm. procédure de formation bi ñaata at lay durer pour soxna jaare bi mën a yëg ne na pour bu barabam loolu mana a Agitam, ak itam yan filière ñoo fi am yoham xam diversification la pour bu ñëwé mom mo am choix personnel lu boppam yan nga ci mëna tuddal. d'abord pour durée formation bi 3 ans la ñetti at lañ lay former mu woor ñu ne ñetti at yi mom dinañ def ci yow compétences yo xamné bo fi joggé di nga mëna sa bop euh filière ñu fi am nak am nañ fi restauration am nañ fi couture am nañ fi transformation des produits agroalimentaires am nañ élevage am nañ horticulture. am nañ coiffure pour l' yoy yooyu lañ amagum comme filière depuis bu ñu ubbee ba léegi. bu formation bi noppi na soxna produit yi produit fini nga xam ne prêt à consommer lay doon ndax créé ngeen ay espace yoo xam ne li ñuy grande surface yi ngir produit soxna jaare yi comme 100 halal. cent nyan la ñenn ñi di ko ngir di ko bëgg a fekk ci supermarché ak grande surface yi loolu fan ngeen ci ci prospection rapport ak seen produit yi moom surtout pour transformation produit agroalimentaire yi yooyu moom yaakaar naa ne ñu ci liggéey bu baax ak fondation Maam Jaara rawatina Soxna Jaara bu sëñ Muntaxa ñu ngi liggéey ak moom ci kioskam bi nekk am na tam ay mbokk taalibe yu ko fii wecceku tamit di ko yóbbu ci seen seen place yi mais comme dañuy soog a door mën naa ne mu ngi bëgg a yàgg mais moyens yi dafa des te dañu gis ne transformation comme métier la boo xamante ni xale yi dañ ko bëgg bu baax léegi nag ñu bindoon benn projet suñu ministère lëkkaloo ak 3FPT financé ko léegi ñu kon commencé di yokk fi nga xamante ni foofu la ñuy defee transformation suñ ko yokkee dinañ mën a jël li mu xale bu yu bari ba nga xamante ni produit yi fay génn dina mën a bari bañ gën ko mën a yaatal mais pour l'instant ñu ngi ci liggéeyal ak waa Masaliku ak yenn euh, taalibe yi nga xamante ni dinañ ko ittewoo ak fii ci biir dëkk bi aussi am nañu ko fii jël si soxna Ndeye xam nga wolof mooy wax ni wala boog tubaab yi sax ñu wax ne l'habit ne fait pas le moine waaye day mel ni lu fees ci xol rek faaw mu feeñ ci jëm kon aspect couture day ñëw xam naa dina am ñaari baat yu ñu sàkku ci yow ci suñu mbokk yi nga xam ne ñoom lañ ci fekk tey ñu doon ziyaare sëriñ bi muy teyri yi nga xam ne ñoom engagement boo xam ne dévouement la te loolu corps am lañ koy defee ñew di joxe sen participation ci liggéeyu soxna jaar bi di nga ci def ñaari kaddu waye laaj bi nga xamne ne moom lañ koy ubbé moy soxna jaar yi fi bayiko ko ndax dañ ñam diplôme bu wër bo xamne tay ku ci amone borom kër wara dem bitim rew di nga fa mëna implanter wu ubbi sa barab bo xamne diplôme ba ngay présenter day doy secret ñu ne fi nga ko amé ci boroxam jërëjëf sëñ bi Ndiaye par rapport ak ak diplôme instant yi ñu ngi ci ay ay attestation waaw parce que lutax attestation des fois soxna jaar bi aussi buñ koy jot day tomber mu ay ñaari at ci daara ji wala yeen say ben at lay lay dese bu boba aussi temps de formation bi da fay xawa des donc su desee ñun dañ leen di jox attestation de fin de formation ci bir attestation bi nak ñu firndel li nga xamanteni mom lañ fi jotta jang mais pour l'instant ba ci diplôme état parce que diplôme état dafa xam niveau bu mu xaw a laaj. diplôme bi ñuy former instant yi. waaw muy le certificat d'aptitude professionnelle. donc dafay laaj niveau quatrième secondaire. te xale yi niveau bi ñuy génneegum ci daara ji àggul niveau quatrième niveau CM1 CM2 la. waaw mais ñu ngi ciy liggéey quand même ñu ngi ciy liggéey parce que sunu ministère am na programme bu mu tuddee valorisation des acquis de l'expérience programme boobu aussi direction de l'apprentissage moo ko ñuy xool ñi ñuy liggéey ak ñoom pour que diplôme bi nekk diplôme boo xamante ni diplôme état lay nekk fuñ ko mën a présenter ñu xam ne ñoom ñii kat jaar nañ circuit normal de formation mais terewul nag buñ fiy jógee formation biñ opté bu ñuy dem dinañ am ay compétences yoo xamante ni dinañ mën a defal seen bopp euh, li nga xam ne nag mooy wàllu couture bi couture dafa xaw a jafe donc euh, dafay xaw a difficile pour ñetti at rek nga jàng ci ba lépp lu nekk ci couture nga mën ko xëy na ñun dinañ la tàggat ci ben branche mais dañuy sant yàlla ba ñu amee tailleur yi tey boo gisee seen groupe bi am na ci ay soxna yu ci nekk soxna yooyu jaar nañ fii ñu tàggat leen ci ñaw bi mais dafa des suñu paree ñun dañ leen koy jébbal ñoom tamit ñu continuer seen formation te li ñu neex ci ci loolu yi problème insertion lañ daan ak ñoom parce que mais former ko ba pare mu am fu mu mën a dugg mën fa gis boppam mën a insérer wu ci circuit bi moom moo ëpp solo te ñoom ñoo ngi ñu jàppale ci côté boobu ñu leen ciy sant di leen gërëm ndax dañuy bàyyi seen ité yëpp ñëw nekk ci condition yu ñu leen teg ñu tegu ci liggéey fi liggéey bi mucc ayib beneen bi aussi maa ngi leen doon ñaam sax ne leen pourquoi pas duñ ko yokk ci yeneen corps de métier yi comme couture bi mu ngi fi transformation baa ngi fi coiffure baa ngi fi restauration baa ngi fi ba amna sax ben soxna bu commencé woon di and ak ñom bu yëng ci walu transformation xamna seen yoon bi xeyna dafa xawa japp parce que dañu nekk aussi ci foire Kaolack donc professionnel yu bari ñu ngi fofu di exposer seen ay produits mais rafet nu lañ seen liggéey ndax non seulement dinañ ñëw di leen ñaw ñawal pour tenue yu ñuy sol mais dañu participer tam ci formation bi bu ñu ñëwee indi seen xarañteef indi seen ay compétences and ak ñi fi nekk encadrer len ay fan soog delu wat ci seen lol mom loolu soxna ci rek lañ len di baye mu fayal len bopam laaj biñ koy teje sonu nday mom moy équipe bi nga xamné ne ñoo dynamique nek sa ginnaw ñom tamit tak seen digg di ay soxna di ay formatrice deggal la lol nak ñooñu yombal nañ sa liggéey yan kaddu nga len di jeme ak aussi produit soxna jaare yi ki nek ba bitim rew ba New Jersey ba Las Vegas soxla won ci produit soxna jaara yi koku yeen possibilité ngeen koy jappandal ngir suko beugé mu won ko am. jërëjëf Ndiaye donc équipe bima andal mom duma def lu sante len gëreum len parce que nak man rek mënuma dara té man aussi nekkuma ci classe yi danaka li ëpp sama liggéey ci bureau bi la wala ma génn uti ay partenaire wala doxi lenen ñëwaat mais ñom ño nek ak xalé yi té machallah bo len gisé ñom tay euh, ñu ci bari de buñ fi ñëw. Euh, colin gee comportement bi xëy na amoon ñuy des mais bi ñu duggee ci daara ji gis ni daara ji di doxe dañoo ñëw rek conformé wu daal di dox ni dox ni daara ji di doxe donc foofu laa leen di njëkk a sant di leen ci gërëm ay xale lañ mais seen compétence yëpp génn nañ ko pour encadrer xale yi moo tax ba résultat yi ñuy am ci différent métiers yi ñu mën koo am kon ñooñu dinaa leen sant gërëm leen di leen ñaax aussi ndax euh, nit ki moom lu mu lu mu góorgóorlu góorgóorlu du ñàkk rek nga koy soññ foo tollu ndax mu gën a yokk góor góorlu donc ñoom ñu ngi leen di ñaax ñu gën a jàpp ci liggéey bi bien vrai que jàpp nañ ci nag ndax lu fi nekk rek ñoom la waaw ñun ay moyens la ñuy wuti ay partenaires la ñuy wuti mais ñoom ñoo yor liggéey bi su doxee bu ñu mënee taxaw tey di wane ay produits grâce à ñoom la te taayaluñ ci dara nag. muy góor nag muy jigéen koo ci soxla yow yaa ko yàggal amu fi benn jafe-jafe te lépp ñoo ko yombal mais du ñoom kese aussi parce que daara maam jaar aussi yombalal nañu lépp luñ xam ne suñu soxla la wala suñu itte la bala ñoo toog dafa saafarawu kon ñoom it tey bu liggéey bi yombee tamit ñoom la xatal ñu ci dara ñuy ut ay partenaire duñu booleek ñoom bu cours yi jotee bu financement cours yi jotee ñu ngi ciy jàpp bu baax a baax moo tax tey jii li ñu mën tamit ñu mën ko ñoom ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax muy sëñ abo ak équipe bi mu àndal yëpp soxna nday xam naa kàddu yi ñu lay jox rek nga tëjee ko mooy état ndax liggéey bu tedd nii bu màggee nii bu selle nii ndax état mi ngi ciy jéem a dugal loxoom ci lu mel ne di subventionné yenn kii yi ba liggéey bi di gën a mucc ayib ci yéen ñi nga xam ne yéen a fi toogal kilifa yooyu beneen bi ci dolliku nag sant nañ la gërëm la ci temps bi nga ñu accordel donte yombul woon ndax da ngeen ñàkk jot boole gan ñi à travers al xadimiya yan kàddu ngay ngay tëjee sa sa waxtaan incha allah. waaw kay jërëjëf état moom jàpp ci moo tax ñun ñu toog fi parce que état moo ñu nommé indi ñu fi personnel bi ma àndal yëpp état moo leen di fay ñi ay fonctionnaire lañ ñi ay contractuels ñi ay vacataires te lépp ci kii yu état la état moo ñu fi affecté équipement boo fi gis état moo ko def. xëy na nag am na quelque partenaires yu ñuy jàppale am na soxna ñu fi indi machine euh, daara maam jaar aussi am na personnel bu ñu fi fekkoon boo xamante ni ñu daan former soxna yi avant ñu fi ñëw mais lii équipement li ëpp ci matériel état moo ñu ko jox. projet yi ngi gis école bi mu ngi en chantier ñu ngi liggéey ak état parce que 3FPT moo ko financé te 3FPT branche ministère de la formation professionnelle de l' apprentissage et de l' insertion moom la. ñun foofu lañ dépendre ci ministère boobu ñoom ñoo ñu financé extension unité de transformation bi nga xam ne dina am ay salle de classe yu bees dina am bloc d'accueil dina am tam ay machine ay machine pour broyer céréales yi wala décortiquer ak yooyu wala machine pour defar kafe ay tigadégeeg yooyu yëpp dafa bokk ci projet bi bés bu chantier bi pare matériel boobu ak équipement boobu yëpp dina ñëw ba ci teinture bi aussi. restauration li nekk ci cuisine yeeg yëpp lu ci ëpp état moo ñu ko jox kon état yaakaar naa ne mu ngi ci au début ak nii ñu nekk nii ba tey ñu ngi ñuy jàppale duñu soutenir. li ñu fàtte woon rek ku soxla produit yi ko soxla produit yi moom boo ñu contacter ak foo mën di nekk mën nañ la livrer waa mën nañ la livre ci produit yi. muy produit transformation yi muy couture yi. mu yeneen yi nga xamante ni ñu ngi ciy yëngu coiffure bi tam pour ma leeral ko tam xëy na dinañ ne daara ak coiffure mais nag coiffure bi nga xam ne soxna jaara yi moom lañ soxla loolu lañ leen di jàngal ay létt karaw ay nu ñuy def ba voilé wu ba mu rafet nooy traité def traitement de visage ay sa karaw noo koy toppatoo ba mu kii. dañ koy dëppale ak dañ koy dëppale ak lislaam loolu rek lañ fiy def mais duñ def leneen lu dëppoowut ak lislaam précision bu baax la. waaw la mm. xanaa di leen sant di leen gërëm ci opportunité bii ngeen ñu jox pour ñu gën a fësal li nga xamante ni ñu ngi koy def ci centre de formation bi ci Daara Maam Jaara di ñaanalaat sëñ Muntaxa mu sëñ Basiru yàlla guddal aw fanam te bàyyi ko fi mu gën a wër gën fee yàgg ci bark Cheikhul Khadim jërëjëf